internet yu Dakar Buzz am nañu mbégte jàkkaarloo ak yéen tey ñu ngi fii ci Pikine siège kër Pape Abdou Cissé nga gis leen nemmeeku ci ambiance di ma ci wér nag Omar laa ci àndal damay laaj droite nag ci la leen ambiance mais ñu ngi félicité teel ma motu ma jërëjëf mbokk internet yu Dakar Buzz ñu ngi ci koñu Pape Abdou Cissé ma fekk fi koo xam ne moom moom ñoo footballandoo ma kade am ay qualité yu mu xam ci moom Tafa nuyu naa la. maa ngi lay ziar maa ngi lay ziar. mbaa jàmm. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. ñu ngi sant Pape Abdou Cissé tey kan mooy Pape Abdou Cissé. benn boy jeune talent la bu dëkk ci koñ bi ñu bokk ak moom koñ bi naataange ak Pikine defandoo moom lu bëri ci football. waaw mu nekk sagu waa Pikine yëpp nag ak sagu Sénégal yëpp. ñu mel ni kon dem bi mu dem équipe waaw waaw moom lu mu am ci football mérité na ko lu mu am rek am na qualité am na talent te des na lu bari lu mu war a wane quoi lu nekk ci moom te dina ñëw incha allah waaw non dafa leer. doom Pikine fu mu dem daa war a jël. non équipe bi mënut a ñàkk doom Pikine. waaw loolu mënut a ñàkk mënut a a ñàkk doom. déedéet mënut a nekk. noo tudd. maa ngi tudd Kodou. noo gisee match ah, de kontaan xanaa. monsieur Dior. Pape ak Sadio Mané. yaakaar Elimane Ndiaye temps comme xale jigéen Elimane Ndiaye lañ jël. ah man de ak kii euh, Sadio Mané. Mhm. mais gis nga ne sa Pape Abdou Cissé donte dugg def na match bu baax. laay capot la dernière minute tund bi ëpp dëkk. Pikine laa dëkk. noo gisee match bi. ah def ba mu baax rek lan nga yaakaar ni moom lañ war a yokk ci équipe bi wala lu war a wàññi. tay bi moom macha allah Aliou Cissé wax dëgg yàlla classement tayam bi moom macha allah dañuy ñaan yàlla huitième de finale ba rek ñu def ko kon ni ñu ko doon defee indi coupe bi fii. amiin yàlla yàlla allah. Fama kan mooy sama joueur. bon Sadio Mané mooy sama joueur. mais nag maa ngi bëggee Pape Abdou Cissé fii si Pikine. koñam la ko ah. ndax koñu Pape Abdou Cissé la. waaw Pape Abdou Cissé. noo gisee match bi um, vraiment kontaan nañ trop nag. waaw te incha allah dañuy ñëw incha allah. mi ngi lay seetaan loo euh, di la ne du courage di la encourager ah aussi di la féliciter aussi te incha allah day ñëw. yàlla yàlla def daaw grand ñii la ñii ñooy xet Pape Cissé Hamdoul Ndiaye xam di félicitation ba pare. Euh, merci. mbaam nga jàmm. waaw bu baax sax. tey nan ngeen dundee match bi muy match pression boo xam tey seetaan nañ ko avec avec difficulté. waaw match protection la woon match bu metti la woon match final la woon tamit waaw ndax euh, mën naa ne match final lañ doon ndax boo dóoree rek qualifié yàlla def na ne tey jii gagné nañu Équateur qualifié nañ alhamdulilah waaw. ñu gis ni Pape Abdou Cissé euh, euh, ngi ci match bi dugg na remplaçant mais tey bu ngeen gisee Pape Abdou tey di joxe fee faram tey yéen ñeeroon moom nan la def ci ah fierté gis sunu copain sunu doom. doomu Pikine doomu Sénégal dugg ci match boo xam ne tey jii équipe bi daf koo soxla ñu gis ko ci mu dugg ci tey jii dañuy kontaan torop torop Pikine yëpp kontaan nañ di ñaanal Sénégal lii yàlla na jëm kanam yàlla na continuer incha allah. boo ma loo koy ñaaxaat muy doon ndax mi ngi lay seetaan. waa di ko ñaaxaat rek mu gën a ñu gën a góorgóorlu ñoom ñëpp moom tamit mu gën a góorgóorlu ñu gën a concentré waat xool li ci suñu kanam ndax match bi passé na ñu ngi xoolaat leneen li ci suñu kanam yàlla defal ñu ci victoire incha allah. amiin bëgg bi rawee tur bi man Fallou laa tudd. Fallou noo gisee match bi tey seetaan nañ ko te man damaa toogoon ci nen tey. waaw kontaan rek kontaan rek ndax équipe nationale moom équipe nationale ñëpp la waaw ñun amuñu Pa Abdou Cissé amuñu kenn équipe national équipe nationale ñëpp la waaw kontaan nañ lool nag waaw. boo amoon lu ñuy yokk ci équipe bi lan lay doon. waaw équipe bi moom fi nii moom macha allah waaw macha allah xanaa gën a góorgóorlu rek waaw mais amuñu lu ñu ciy gën a góorgóorlu rek kontaan nañ trop nag wax dëgg yàlla. bëgg naa la. waaw ah, Diagne Faye da ngay seetaan monsieur da ngaa tiit gis naa la yaa ngi toog ci ne. <laughs> dëgg la dëgg la dëgg la booy la def booy xam nga lan booy booy rek la ngeen nekk de bi ngeen laaj ko nañ ko comme sénégalais yëpp. début bi metti woon na trop mais bi ñu am nañ espoir après équipe bi égalisé mu metti waat mais teewul yàlla def na ñu dugalaat deuxième bi quoi. mais bi ñu égalisé a tiit comme tous les sénégalais ñëpp tiit nañ quoi parce que xam nga équipe boo xam te nul la soxla yow nga soxla victoire si moom moom mooy gën a nekk à fois waaw mais yàlla yàlla def na sutura ko lii ñëw yàlla lii ñëw yàlla na daal. naar nuy naa la. may ma loolu waaye. <laughs> nee na day daw Demba. kii nag bu la Pape si sa amee bor boo ko jàppee mu fay la Demba nuy naa. <laughs> waaw mais maa ngi siyaar grand bi maa ngi. waaw sant alhamdulilah. seetaan match avec typique bu bari. waaw waaw pression bu metti sax depuis démb léegi nag depuis démb léegi dañoo nekkoon ci pression mais gëmoon nañ ñun lu ñu yor mën na mën na mën na gañ a match bi ñun amuñu si woon sax xel ñaar. vraiment loolu moom amoon nañ ko wax dëgg yàlla. boo amoon looy ñaax Lions yi lan lay doon. amul dara lu ma leen di ñaax ñoom ñoo gën a xam li ñu leen war a ñaax mondial la bëgg naa ñu yegg foo xam ne équipe africaine yi mosuñu faa yegg te maag ñoom ba maag ñoom waaw après lu yàlla def nag ñu xam ne muy loolu. da ngay jël mën ngaa jël coupe bi dem. jeex na ko ñu jëm ba. papa ñu indi coupe rendez-vous final fii kon. deux ans de Pape Bouba a euh, deux ans de Pape Bouba Diop tey muy loo xam ne tey jii yaakaar naa euh, am message ba mu lancé wax ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, joueurs yi bi nga déggee message bi tey lan la def ci yow en tant que joueur. waaw loolu moom dafa daw suñu yaram tey jii ndax Pape Bouba Diop ku ko xam ne am na lu mu def équipe nationale tey jii waaw ndax euh, mondial nga dugal ci première but première match tey jii lool rek dara la mu génn àdduna nag di ko ñaanal Sénégal yëpp di ko ñaanal yàlla xaare ko àjjana. match bi tey gars yi ñu ngi ko doon joué ndax moom ñu ngi ko doon joué ndax Sadio Mané ñu ngi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. moo tax bu ñu amee victoire tey sénégalais yi dañuy kontaan waaw di ñaan yàlla yàlla liy continuer rek jëm ca kanam comme ni ñu defoon coupe d'Afrique bi rek incha allah. da ngaa tiit non tiitu ma. pression bi non tiitu woon xamoon naa dañuy gañe waa ji xamoon naa dañuy gañ tiitoon non tiitu ma woon man du ma tiit si woon waaw ah, parce que dama xam ne lu ma yor rek dañoo xam ni ñu yor moo ñoo mun ñëpp ñoo mun ñëpp. ana waa ñu ngi dem Gale. nan dem Gale. gaale nan dem gaale nan ah, dem gaale xam gaa yaa ngi nii kat boo gisee gaa gis nga waa gaale xam nga si dara jarul ñu la koy laaj waaw mais ñi seetaan bëgg nañ xam kan mooy Pape Abou Cissé waaw Pape Abou de benn benn nit benn nit la rek boo xam ne nit bu oyof nit boo xam ne ba mu doonee li mu doon ba tey fàttewul ay xarit démbam ak barki démbam waaw Papa Cissé ni nga ko xamee woon bu muy joué naataange. sama sama Cissé ñaari tànk la daan sànni. waaw kay yow kenn du la wax abu parce que yow naataange moo nekkoon sa équipe. waaw léegi yow Papa Cissé ni mu meloon démb barki démb moom la melaat tey ba tey. mi ngi lay seetaan boo amoon loo koy dolli match yi ci kanam ndax lu yomb amatu fi lan lay doon. waaw non moom xam na li muy dolli chaque jour ñu wax ko ñu koy wax maanaam mooy mu liggéey liggéey. bu mu yàkkamti bu mu def dara nii mu koy defee noonu la su ko Aliou Cissé parce que Aliou Cissé dafa am confiance si moom ba boole ko si 26 yu ñu tànn saa yu ko Aliou Cissé dugalee mu def wareefam te xam na ni mu joué dax peuple Pikine waa yi parce que moom mooy représenté Pikine fee sa Qatar waaw Pikine waa yëpp ñu ngi si ginnaawam di ko dooleel rawatina waa Sénégal. Pikine waa yëpp ñu ngi koy xaar ci loolu Pape Cissé ñu ngi lay nuyu ñu sa seef na nga xam ni loo góorgóorloon na nga ko yokk naam yaa ngi ci waaye sa gox tey leen la gën a bëgg tey leen la gën a sentir tey leen la gën a euh, jox ndigal li nga jekk départ nag naataange ba ñaay ba AS Pikine ndax maa fekkee la police bëgg kon loo am ci mérite loo am ci politique mérite ca kaw ca kanam dama leen di bàyyi ngeen dund ambiance nag ci Dakar mais ñi ngi koñ Pape Abdou Cissé Omar laa ci andal